waaw ah, di santaat bu baax suñu borom di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te gën a wér ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou mu yàgg fi lool te gën a wér ñaanal sunu sang bi Serigne Saliou ci ndigal mu yàgg fi lool te gën a wér di ñaanalaale sunu sang ba Serigne Bacco jaamu Serigne Saliou yàlla na yërmandeem gën a sotteeku si ñun. waaw di santaat bu baax sunu borom tey muy bisu màggal gi waaw mel na bu baax. waaw ma santale yalla sunu borom Serigne Touba ci bisam bi adi di suñu sunu borom bu baax baax baax a baax ah ni ngi won ci wañ bi ci taliba ah tey ñi mom ñi ngi ci kër gi ci cant gi waaw mel na ni tànn nañu añi ni waaw buñ ko man bu paré rek ñu def comme ni chaque année duggu ci dëkk bi sédélé ko wa bokk ak ñëpp wa bokk ñëpp ak cant gi kon ñi ngi sante yalla bu baax baax te ñaan rek yalla ñu ko téwat ay déwén yu bari bari bari bari waaw di santat bu baax mbok talibé di di gërëm tamit Euh, borom kër gi mi kilifa gu mag ci dëkk bi euh, di sëñ si euh, Moustapha gaylo ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy sant bu baax tam tamit liggéey bi ñu and ak mom depuis jitt at ngi ñi and ànd ak moom liggéey bi wa diko gërëm bu baaxa baaxa baax a baax dëgg yàlla amuñu fayam waaw gis nañ wa manam ñu taxawoo barki Serigne Touba ci liggéey bi waaw yombal nañu lepp waaw yombal nañu lepp barki Serigne Touba ñu ngi koy sant bu baaxa baax da ñaan yaalla suñu borom yok ay xéwalam wa di ñaan suñu borom taxoko bu baaxa baaxa baax le liggéey bi. waaw ren moom dañoo dem tufe rek waaw ren moom dañoo def tufe rek la ñu def waaw ñamu Touba tufe pompiteer waaw moom la ñu def ren moom euh, daanaka léegi mu sont sax bu paree rek ñu yàq ko ci ay bool dugg ci dëkk bi séddale ko comme ni ñu ko tàmm defee kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax waaw jëriñ. Mhm. sant seen Touba bu baax màggal gi moom macha allah neex na waa Kër Saalum Thioune fi ñu wàcc na nga ba sero ndax ñu li mësuñu ko am ànd koog sëñ bu baax bee mënoon nanoo ñëw mu yemal ko këram mais bu ñëwee waa dëkk bépp lay yaatal ñëpp lay tibbal nag ñëpp ay lekk ba suur naan ba man ber ndey mais nag xolam la ko fay la ko yàlla fay moom ñu ngi koy ñaar mu yàgg fi bu baax ñoom ñi ñëw tamit di togg yàlla yokkal leen seeni xiiwal bu baax a baax may leen wér yokk waañ bi bu baax nag bu nee sax kër yi amul waañ sax ñu indi waañ ndax fii heure bu ngeen fi indee waañ moom ñu toggal leen ndax ñun yéene rek lañuy wër Cheikh Béthio rek wër waaw yàlla na yàlla yokk xéwal gi bu baax a baax sant nañ leen bu baax ndax bu ngeen ñëwee moom du namati dara du ñee waa Touba daal maanaam ndax lu waa Touba def bu ngeen ñëwee def lu ko ëpp fii kontaan nañ bu baax yàlla na yàlla yokk leer leer yi bu baax a baax benn day doy na dara manqué wut dañuy toog dañuy tibb ba denc ko semaine suñuy frigo di lekk di tàngal di lekk te du jeex fii fii moom loo xalaat am na fi loo xalaat na day dem ci biir rek am na fi dara manqué wu fi macha allah ndox yi dañuy naan misu yaa xar yaa ngi nii ceebi jeni yi démb day jalla ñoo suba tamit dañuy defaat ñom suba sa buñ xey dañuy togg ba ginnaw suba dañuy togg la xey lepp day dox fii ba ñett fan mom ba semaine la wax sax ndax ñu li ñuy tibbal sa duñ ko mëna lek dañuy dem denj ko suñu frigo chaque jour ñuy tangal di lek sant na leen baax daal ñom bu deena daal luñ man lan man lu ko ëpp nañ ko defé ati at wanga mom moom ñeewuñu wa Touba ñun ñi fi dess ñun ñeewuñu wa Touba yalla leen yalla yokal xewal seigne salou Thioune yàlla bàyyi fi ay ati ati at mom tamit yok wéram bu baax baax. fi may wañu soxna yi ah soxna ñun tamit ñoo nekk ni di dag manam sa du fruit lepp ah, lepp ci cant gi la bok ah melna ni ñoom tamit ay jambar lañ ñoom tamit waaw an nañ liggéey bi waaw ñu koy sellal bu baax a baax baax waaw ñoom ñu yor dal walum walum walum berne ci wañ bi waaw dëgg yalla bi magal gi tàmbalee ba tay ñi ngi ci nelawuñu noppalawuñu ko barki Serigne Touba muy ay jambar bu baax di leen sant bu baax a baax a di leen ñaanal tamit waaw yalla serigne ba yok seen xewal waaw ci magal gi tamit lepp ñun tamit luñ fas waaw ci serigne bi yalla lañ ko serigne bi defal ñu ay jambar bu baax a baax ñu leen di sant di leen di gërëm waaw assalamu alaykum wa rahmatullah ba koy ñoy leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen siyaar ci bis bu bu tedd bi di amane mbégte lool ak kent ci li nga xamne démb set safar ñoo ngi ko ànd ak mbokki taalibe yi ak waa kër Serigne Saliou Thioune di daayiram bii di Sicap nga xam ne ñetti at a ngi nii ñuy ànd ak ñoom liggéey Serigne Touba bi fii ci Ngaabu ci dëkk bu sell bu tedd bi tey di bisub fukkeel ak juróom-ñett ñu di ko wax 18 safar ñu nekk fii ci kër gi. ci Ngaabu kër Serigne Swalo mu Serigne Damlo am setu ànd ak waa daayira bi ci liggéey bi nga xam ne barki démb ba léegi lañ ko doole dooroon mu nekk liggéey bu sel bu rafet bu yaatu bu jullit yëpp bëgg waaye bu rasulillahi sallallahu taala alayhi bëgg waaye bu Seyxul Xadim sunu yaakaar te ëllëg bëgg waaye bu Cheikh Béthio jàmbaari Serigne Saliou Dieye bëgg ngir jëfam juré ji nga xam ne moom la ko sangam bu tedd ba Cheikh Saliou Mbacké dexoon diggal mu nekk ca eh, di ko liggéey ba liggéey boobu ku ne gis na ne amut tànk ginnaaw tànki kanam la am muy liggéey boo xam se ni képp koo xam si ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha na wa xam ma muhammadan rasulullah di jullit da nga ko rafetlu ngir jëf juré ja waaye rawatina nag képp koo xam Sëriñ tubaa nga yaakaar muy sa wasila de ñu ko tudde murit jëf jooje nag euh, Cheikh Béthio tàmbali ko muy wëy euh, di wëy liggéey bi di gën di yaatu di gën di rëy ba yàlla dogal tey ji mu dem tànn dëkkaale jeeg borom subhaanahu wa taala fekk ji sangam bu tedd ba waaye bàyyi fi taawam bu tedd bi di Serigne Saliou ndigal cuun mu ñëw moom sofaat ay tànkam ci tànki waajuram bu tedd ba euh, fas yéene eggale liggéey bi waaye wax nañ ne Euh, xam nañ ne liggéey bi nga xam ne moom la ko waajuram wu tedd bàyyeel moom bi mu ñëwee sofu na ci waaye yokku na ko euh, mbir nag bu fekkoon ne sa waajur dafa tàmbali biir bàyyeel la ko mu ñëw loolu ñu gis na tànki ginnaaw la am daa deltu ginnaaw dañuy wax ne kon lala la sa waajur boo bàyyeel su boobaa ñu wax ne moto moto moto ko waaye moom mat na ko sëkk ndax waajal nañ ko tànn nañ ko ndax liggéey bi ku ne gis na ne yokku na tayit mi ngi ko yokk la ma ko waxoon ci vidéo bi rek ne ko doomi ñay de su ko ñaanal rëy waaye des koy ñaanal gudd fan akuk wér ndax bu guddee fan akuk wér lu mu bëgg a def dana ko def kon nag seex bi ñu euh, suñ koy ñaanal gudd fan ak akuk wér liggéey bii nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba ci jaamu yàlla yi ndax suñu borom subhanahu laa taala daf ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te moom mi ngi liggéey ci jaamu yàlla yi ndax màggal gi waxuma la sax fii ci Ngab waaye bari na ci gox yoo xam si ne ca Touba euh, bu fu dutoon Serigne Saliou Thioune wala bu dutoon waa Kër Cheikh Béthio xëy na danañ màggal waaye yaakaar naa nañ koy màggale da da da ab coono dana ci am waaye ci baaxuk Serigne Saliou Mbacké kattanal gi mu ko kattanal ak dooleel gi mu ko dooleel tax na maanaam mbooleem furib sañcaan ci Touba rek yëg nga ci màggal yëg nga màggal gi ci waa Kër Cheikh Béthio ñun waa Ngaabu nag ñoo ngi sant bu baax a baax ci turu. mboolem ku fi xalifa fii eh, ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci tur ci turam bañ ànd ak ñoom ba léegi rëccu nañ ko benn yoon waaye rawatina daayiram bii di daayirab sikaab nga xam ne ñoom ñuy ay jàmbaar di ay taalibe yu baax di lu bëgg lu baax man eh, waxuma dara waaye li ma leen di li ma leen gën a nawe rek bokk na ci ñoom si njëm bopp lépp loo xam ne si nii ñi ngi koy def bu waxtu julli jotee nga seen ñëpp ñu bàyyi lépp julli fajar bu ma nee bu ma nee kàddu sama bunt dama leen di fekk ñoom ñëpp ñi ñii dem nañ ci jàkka ja ñii ngi ci mbaar mi te daa bokk ci li Serigne Touba dénkaane woon euh, fan yee rek maa ngi dégg benn interview bu Cheikh Ahmadou Rafael yàlla na yàlla wéral ko ca yàggal ko di wax di nettali mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba ba nga xam ne ku tedd moom Cheikhul Khadim tan na dëkkaale jeeg boromam subhanahu wa taala bi bi. yëkkati ko ba Cheikh Mouhamadou Moussa jëf ca jëfam juré joojee muy jëre ji sang bi njaareem indi ko Touba ca xaddam wut kere bi mu ko indee Touba wax nañ ne booba bi muy bi bi bi bi waxtu gee diggante boobu ci lañ départ njaareem jëm si Touba waxtu gee bi ñuy agsi Touba booba daanaka guddi gi xaaj na bi ñu yegsee ba di ko def ci bërëbërëm bi nga xam ne mooy di këram nga Eh, biñ ko waajalee ba di ko ba di ko ba di ko ba di ko defar bi ñuy noppi ba di ba denc ko ba denc ko ba dugal ko ci biir kër gi bay maasale ba toll ci marmaral ba toll ci jal ko jéem di jal di jal yëf yi bi ñuy tollu foofu ci lañ noddu fajar wax na ne bi noddee fajar ñoom mag ñooñee ku mel ne Cheikh eh, Serigne Bakki Boussa ak mboolem ña nga xam ne mag ñi Serigne Touba defaroon na ñu wax nañ ne biñ noddee fajar rek dañ def dañ def dañ ko fi ne ñukk daanaa ku tedd ke lam ñu jàngaloon mooy lépp lu ñuy def ba waxtu julli jot nañ ko fi bàyyi ci dem julli ji wax ne dañ faa bàyyi sëriñ bi dem dugg ca jàkka ji julli fajar nekk fa ba di def seen rawlaat ba wax nañ ne rawlaat yooyu ñu doon def yaa yeexal yeex gi ma xawoon a yeex sax moo tax xaw a jant bi xaw a xaw a laat euh, tuuti ñu war bari ci waa Touba seen leen doo ko yëg li xew kon ñooñee bàyyi woon nañ xel jaamu yàlla bu baax a baax ndax Serigne Touba jaamu yàlla moo ko taxoon a dem ci dëkk géej gi kon képp koo xam seen ab taalibe nga ca yaakaar Serigne tubaa ne taalibe bon nga lepp loy liggey ci diko ko Serigne Touba lolé war nga at baye xel sa tek sa tànk ci de jaamu yalla moy li war lepp loy def bu bu rek na nga baye lepp nga dem jaamu yalla te ab julit liñ koy nawé di ko ràññee mooy waxtu julli ndax tay ji bu fekkente da nga ne ab sénégalais la ñu la lan moy mandragal sa sénégalais lu tax nga nga ab sénégalais da ngay génné sa carte d'identité nationalité nga jox ko ñu xol ko ñu xamné kat ki kat nationalité moy ab sénégalais la ñoo xam ne yow mii sénégalais jullit nag la koy mandarga dëgg ni ab jullit la waxtu julli day jot ñuy yéen la nga këpp sab jë ci suuf dem jàpp ba sell fas yéene su jotal su moom julli ñoo xam ne kii kat ab jullit la leneen loo def rek lu dul loola euh, balaa ñoon ràññee ne ab jullit nga wala daal dañ ay lu ñuy wax ay doon wala nga wax koog ñoom jëf ko waaye julli moom daa bokk ci jaam yàlla te ñoom gis naa ko ci ñoom liirub ñetti at yi may ànd ak ñoom gis naa ne ñu fonk jaamu yàlla lañ gis naa ne ñu fonk ay doomu aadama lañ gis naa leen ñu fonk liggéey lañ ndax ay kàngam rek a fi daje waaw wax naa ne la kooku nga doon defal léegi interview bi mu sol mayo boo ko fekkee ci biroom da nga naan déedéet te boo ko fekkee fii da nga naan kii moom daanaka ab dongal daara bu tawti la kon ñoom Sëriñ Tuubaa rek leen yor ñu ngi ñu ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa di yàlla boole ko di liggéey ndax ab jullit moom ñett yi rek la ko Sëriñ Tuubaa digal Sëriñ Tuubaa daf ne jaamu yàlla ju àndut ja àjjal euh, euh, ne aljana ju àndut ak jaamu yàlla man Sëriñ Tuubaa xaw ma ko ko xam fa man ma dama wuti ko loolu la nga la muy mooy soo bëggee am àjjana ngay nangoo jaamu yàlla sa borom subhaanahu wa taala waaye teraangay àdduna ju ànd liggéey loolu ko xam fa man mi dama wuti ko loolu la muy tegtale mooy soo bëggee teraangay àdduna da nangoo liggéey te gis nañ ne ñoom teqi toqi nañ leen ci loolu mooy yar nañ leen ci jaamu yàlla yar nañ leen ci nangoo liggéey yar nañ leen ci topp Sëriñ Tuubaa loolu mooy moom laa xam ci ñoom kon nag noo ngi leen di ñaanal loolu yàlla na yàgg yàlla na sax yàlla nañ suñu borom subhanahu wa taala musal ci pexem saytaane yàlla nañ suñu borom subhanahu wa la musal ci pexem saytaane yàlla nañ suñu tuba yàlla leen suñu borom subhanahu wa taala defal ngërëmal suñu tuba lu sax dàkk te yaakaar na am ngeen ko yàlla nañ ko suñu yàlla na ko suñu borom dolli bi yaay seen waa ñu ngi ñaanal Serigne Saliou Thioune yàlla suñu borom guddaloo fanam wéral cëram waaye di ñaanal Serigne Moustapha Lo mi nga xam ne mooy xalifab dëkk bi suñu borom wéral ay cëram guddal aw fanam ba lim yéene ci njabootu Cheikh Ibrahima Lo gi sunu defal ko ci kaw jot noonu lañ koy ñaanale sunu mag sunu kilifa sunu sëriñ sunu waajur Cheikh Ibrahima Khalil Lo sunu borom guddaloo fanam yàggal ko ci kanam njaboot gi bi jaay sin naam sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem waa dëkk bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. بشرى لنا قد أتى الجود والكرم لما اشتلت علي على شهور الهرم حزنا متى بما على القبران في رجاب وانا الذي في المواقر دما حريم نرشو من الوحيد القهار خالقنا قراني دا وهو جبار ومنتقم وهو المغيث الذي أرجو إعاسدا ولا تلي نفسي في الدارين أنتقم وهو ما شاء كان وما لم يك سائياه الدار ينعدم لا البرايا لا أبعالا ولا جل الوجود الذي قد زانه القدم فمن لو شل يسر مادا ولا دم مثلثا في قاتل لهم قدم توبوا لو يا سابي التثليث في عجال وسار قبل موت بعد ندم لربكم سارعوا مستسلمين معا بخافي من زحزحت عن حزب الظلام الله باق قديم لا يشابه ما بالبال يخطر والمفرد العلم ومن يثلث فريق بل مالكا سمادا فجاهل ويلاقي كلهم أنام